bàkkaar ya mooy sawe taas ci ñun mooy dog ba tey màggal ko moo di li ci ñun di ko sant tey biro bee fa ndar moo tëmbër ya fa jaar ba wey ku ci dul Sëriñ Tuubaa keroog si ñëwoon nga wey biro Fandar fandaru moo atteem ya fajar bewe wey ku ci dul sëriñ tuuba ku ci dul sëriñ tuuba ku ci dul borom tuuba keroog si ñëwoon nga wey soldar sa agwa waatir ci màggal gi lo xamne ni tambali nañ ko bala magal gi la te bu magal gi weyi dañ koy continuer ndax programme la bo xamne ni ci euh, programme la bo xamne ni ci ville de Touba la concerner mun naa wax léegi ne ñu ngi ci yoon yi nga xam ne nii commencé woon nañ ko ci programme spécial programme Touba tey jii budget bi ci desoon la ñuy yeggale ni di ci liggéey defar nañu boo seetee juróom-ñetti tali yu bees biir Touba yoo xam ne day yombal dem dikk bi biir Touba bu loolu weesoo defaraat nañu yoon yi nga xam ne nii ndax nawet bu jàllee nawet bu jàllee day am ay yàqu-yàqu yu am ci tali bi nawet bi jàllee nii tombeek màggal gi jub si aussi defaraat nañ yëpp fexe nañu aussi bay pax yi amoon ci yoon yeeg yëpp ñu defaraat ko ba nga xam ne nii yoon yi dinañ neex a jaar surtout màggal bii di jub si loolu nag concerné na yoonu Dakar bi yoonu Daaru Musti bi ak yoonu Mbàkke bi yëpp également yoonu daara boo leen seetloo ñi ngi ci liggéey bi dinañ fexe aussi ba màggal gii di jub si dañ wax entreprise bi koy liggéey mu defar na nga xam ne nii daal yoon bi dina neex a jaar ba mu màggal gi passé ñu mën a continuer liggéey bi yoonu daara boobu aussi mun naa ci yokk ne lii concerné diggante Carrefour Ndindi ba dugg biir Touba ba dem ci rond-point SGBS deux fois deux voies lañ koy def mu gën a rafetal en tout cas nekk ci biir Touba. li ñu séntu ci programme boo xam ne nii soreetul mooy maanaam Promoville Promoville Touba dafa bokk ci dëkk ñu tànn ci Promoville tànn bi ñu ko tànn nag tax na ñoom boulevard 30 mètres bi lañ bëgg ñu defaraatal leen ko boulevard 30 mètres boobu fi mu ne nii suuf la buñ kon buñ koy defar dañ koy def boo xam ne ñaari yoon lay doon daa loolu day wane ne oto yi du ñu tase te ci biir defar boobu dinañ ci def ay garab dinañ ci def yoo xam ne nii daal dina dina dina dina tax daal mu gën a rafet mu doon yoon wu rafet woo xam ne day doon yoon wu am sécurité tamit. goudron lay doon goudron lay doon goudron lay doon goudron lay doon te may fàttali rek ne. banque islamique de développement moo ci ànd ak Sénégal pour defar yoon woowu. bu ci yàlla àndee ñu ngi nii ci euh, baaraam mbiru kayit yi am nañ yaakaar ne premier trimestre 2017 moo maanaam 2018 maanaam diggante janvier ba mars 2017 18 ci diggante boobu am nañ yaakaar ne bu ci yàlla àndee dina mën a tàmbali. Euh, man euh, bi pour waaw dañu tronçon Mbacké bi dañu gis ne. développement Touba dafa def ne oto yi dañoo gën a bari circulation bi gën a xat donc ñu décidé ci ci ci ci autorité nag ci autorité waa Touba ne nañu yokk benn yoon supplémentaire ci diggante rond point SGBS jëm Mbàkke loolu liggéey boobu ñu ngi ci mënta pare nag fii ak màggal gi boo leen ko gisee bu màggal gi weesoo dinañ continuer liggéey boobu bu sobe yàlla te goudron lay doon tamit. Oui, dans, dans, le cadre de la modernisation de Touba, il y a, a l'axe principal qui mène vers Mbaké aussi qui est concerné. C'est-à-dire que cet axe va passer en trois, deux fois trois voies. Donc on ajoute une voie supplémentaire entre le rond-point de la SGBS jusqu'au niveau du rond-point de l'entrée de Mbaké Ça aussi, c'est pour permettre une meilleure fluidité de la circulation à l'intérieur de Touba. Comme vous le savez, c'est une ville qui grandit et le développement fait en sorte que le niveau de trafic est très élevé, surtout sur cet axe principal qui mène vers la grande mosquée de Touba. si ñëwoon nga wey biro bee fandar moo atte mbër ya fa jaar ba wey ku ci dul sëriñ Tuuba ku ci dul sëriñ Tuuba ku ci dul borom Tuuba keroog si ñëwoon nga wey soldar sa ak